asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baad auzu billahi sami alalim min alsheytani irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaan yafqahu qawli mbokk yi man Oustaz Ousmane Sall Thiès maa ngi leen di nuyu nuyu bi gën a tedd su nuyu yi di jël nuyoo boobu nag di ko teg ci loxo président Ablaye Fall mu tegal ma ko ci loxo Thierno Ousmane Sow muy saaral ma ko ci mboolem panel bi mboolem parti bi ak mboolem ñi nga xam ñu ñuy déglu ah, di ñaan suñu boroom suñu waxtaan wi fekk leen ngeen nekk ci jàmm ju mat sëkk di ñaan suñu borom mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu rek yàlla dafa leen jàmm mat sëkk dafa leen aafiya waaye dafa leen si euh, seen yaram muccal leen tam si seen pas-pas tey leen seen diine lislaam tey kon mbokk yi ñu bëgg waxtaan ak si benn bis boo xamante ne moom la ñu dëgmal si mooy bisu tamxarit muy ashura ñu bëgg waxtaane ak yéen rek bis boobu wax tuuti si histoire bis boobu ak yan xew-xew mooy yi nga xamante ni moo fa xew ak bis boobu liñ si bëgg ab julli def ko si kon daal yii daal lañ bëgg a waxtaanee su fekkee xëy na waxtaan wi temps gën naa am nag ñu waxtam senegal Sénégal ni ñuy dundee bis boobu ak li si baax ak li nga xamante ne ay aadaat la yoo xamante ne dees ko war a bàyyi kon suñu waxtaan daal si bis boobu la kon mbokk yi xam nga ne asura mooy tamxarit mooy bisu fukkeel bi nga xamante ne moo nekk si weeru muharram weeru muharram mooy première weeru lislaam kon première weeru lislaam si fukkeelu fan ba mooy ashura bis bu ko jiitu ñu tuddee ko tashua tashua mooy juróom-ñeenteelu fan bi kon bisu tamxarit daal mu koy ñu ngi koy séenu si weeru lislaam bi ñuy tudde muharram muharram moy premier wéru l'islam moy wéru njëkk ci at ci wéru l'islam yi muy muharram juróom ñent su démé ba am juróom ñent fan bis boobu moy taasu a moy bis bi jitu tam xarit fukkelu fan bi nak moy asura mu tombe fukkelu fanu tebaski bi euh, bis bobu nak amna ay ngëneel yu am solo gëne na yenen bis yi ay ngéné yu takku parce que likoy waral moy li xew ci bis bobu ay xew-xew yi nga xamantene amna ci bis bobu bis bobu bokku na ci xew-xew yi moy yàlla ci la musale yonente yàlla Muusa alayhi salam musal ko ci fir'auna alak fir'auna labal ko ci géeju Xalzuum muccal Moussa ak ñi mu àndal loolu mu ngi amee woon ci bisu tamxarit looloo tax ñi nga xamante ne ñooy juif yi bu njëkk ñoom dañ doon màggal bis bi di ko feetu parce que dañu jàpp ne seen yonent yàlla def ko muccal waaye noonam bi nga xamante ni mooy na yàlla labal ko kon ñoom ñu jàpp bis boobu feet di ko feetu di ko màggal waaye dem na ba nga xamante ne seen jigéen ñi sax si bis boobu dañ doon génne seen takkaay yi ak seen yére yi gën a cher di ko sol di ko feetu di si bëggee juif yi loolu lañ doon def waaye nasaraan itam mooy chrétien itam ñoom itam dañ ko doon woor di ko feetu comme ni koy juif yi di woore di feetu bi nga xamante ne l'islam nag ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yónni ko yonent bi nekk màkk bi mu jógee màkk waa màkka di ko bundu xatal mu gàddaay jóge màkk dem Médine bi mu demee Médine saxaaba yi fekk si ko foofu yonent bi fekk fa ay juif parce que Médine juif yi ñoo fa bari woon yonent bi mu fekkee juif ya juif yooyu doon màggal bis bi doon ko woor doon ko feetu saxaaba yi gis juif yi nga xam ñoo nekk Médine di ko woor ñu xool xam ne li tax ñu koy woor mooy seen yonent bi Muusa alayhi salaam bis boobu la ko yàlla musaloon ci firawna labal noonam saxaaba yi bi ñu gisee loolu ñu ñëw ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa ñu ne ko ee yow yonent bi juif yu Médine yii de dañuy woor bisu Ashura ndax li si yàlla musaloon yonent yàlla Muusa si noonam wa na ñun jullit ñi nag kon xanaa dañ ko warta woor bi ne leen ñi nga xamante ne mooy juif yi gënuñoo yey ci yonent yàlla Muusa gënuñu see yey mukk ñun sax ñun ñoo leen gën a yey si yonent yàlla Moussa comme ñoom dañ koy woor te ñun ñoo leen si gën a yey kon digal naa leen yéen saxaaba yi ngeen di ko woor yonent bi si la digalee saxaaba yi ñu di ko woor saxaaba yi commencé di ko woor bis boobu su ñëwee ñu siy jàngal seeni doom di leen jàngal seen diine kon bis bi kon sunna si mooy woor ko ba pare sa njaboot nga jéem leen jàngal jéem leen a nettali xew-xew yi nga xamante ne am na si waaye jéem leen jàngal seen diine si bis boobu loolu sunna la si bis boobu bis boobu nag am na yeneen xew-xew yu si am bis boobu si la yàlla jéggalee suñu maam aadama si bakkar bi nga xamanteni ne nako xam ngeen ne suñu mam adama bi ko yàlla dugalee àjjana ne ko man nga lek lepp man nga jëfandikoo lepp ba mu des pom bi garabu pom bi bu ko jege bu ko lek yonti yalla adama iblis di ko jax-jaxal jaare ko ci yonti jaare ko ci hawa ba finalement mu lek pom ba bi mu lekke pom bi yalla mere ko waaye muy bàkkaar bu rëy boo xam ne def na ko yàlla mere ko wàcce ko si beneen béréb buñ naan suuf si nga xamante ne si lañ nekk kon bisu tam xarit si la yonti yàlla aadama tuub yàlla jéggal ko bàkkaar boobu nga xamante ne defoon na ko mooy mooy googu nga xamante ne moyoon na ko ba lekk pom bi waaye yàlla si la ko wàccee tam si suuf si si la ko jëlee si àjjana wàcce ko suuf si nga xam fa lañ nekk moo tax yàlla wax na ko mu ne fa talaqa adam min rabbihi kalimaat fa taaba alay innahu attawaabu rahim yonte yàlla suñu maam aadama bi nga xamante ne def na bàkkaar bu toll noonu si la tuube si boroomam ci ay kàddu yàlla jéggal ko kon bis boobu lañ ko jéggalee bàkkaar boobu nga xam ne def na ko waaye bis boobu si la ko yàlla wàccee suuf si beneen histoire mooy si bisu tam xaritam si la yàlla musalee bato bi nuux yonent yàlla nuux duggoon àndak ak bépp xeetu mbindeef bu yàlla bind dugal ko ci bato boobu bato boobu di tëmb ci kaw ndox mi parce que bis boobu yàlla dafa alagoon dafi jële woon àddina bi asamaan di wàcce ndoxam waaye suuf tam di génn ndoxam bis boobu àddina bi dara desul lu dul ndox bato bi di tëmb si kaw ndox mi waaye bis boobu muy bisu tamxarit c'est yàlla musalee euh, bato boobu ba diigul ba suuxul bato bi dem ba costé ci benn montagne bu naan juudi yi kon bis loolu mu am si bisu tamxarit waaye bisu tamxarit tam si la benn xare bu ñu naan gazwatu riqa gazwatu riqa benn xare bu métti la woon boo xamante ni yonent bi xare woon na ko ànd ak saxaaba yi xare ko si ak benn xeet buñ naan najd banu najd ak banu saalaba ak banu maxaarib ñetti xeet yi mooy najd ak banu maxaarib ak banu saalaba ñetti xeet yi ñu komplo woon di xeex lislaam yonent bi ànd ak saxaaba mu xare bu métti boo xamante ne saxaaba yi dañoo mujjee jël seen tànk yi di si laxas ay morso ndax tàngoor ak tartaru xare bi kon bis boobu la gazwatu riqa amoon mooy bisu tamxarit mooy bisu waaye bis boobu tam ci la ñu rayoon sëtu yonent bi muy doomu fatimatu zahra mul mul xuseynu xuseynu nga xamante ni sët la si yonent bi doomu yonent bu jigéen ak ali yu jur ko muy fatimatu zahra bis boobu si lañ ko war ku karbala ray ko ray bu ñaaw boobu si bisu tam xarit la amee biñ koy ray mu nekk martir fekk na mu toll si ay at juróom fukk ak juróom benni at la tolloon ñu ray ko ray ray gu ñaaw boobu ba foofu karbala te xam ngeen ne Xuseynu yonent bi daf ko buggoon lool ak Xasan ñoom ay seex la ñu woon waaye yonent bi bëggoon lool yonent bi doon la wax si ñoom al Xasan wal Xuseynu sayida shababul ahlul janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naan Xasan ak Xuseynu daal ëllëg àjjana ñooy sangu ndaw àjjana yi bis boobu nag mbokk yi sunna la comme niñ ko waxe woon rek sunna la woor ko sunna la woor ko sunna la muy sunna bu am solo ñaari fan yi woor ko day nekk woor bu am solo mooy taxawaayu arafa woor ko waaye tam bisu tam xarit fukkeelu fan bi woor ko day am solo lool woor ko li muy jur mooy yàlla da lay jéggal bàkkaaru at bi nga xamante ni génn nga ko at bi passé parce que xam nga tamxarit mooy atum lislaam bu bu njëkk su ko defee soo ko wooree nag at bi nga génn bi passé suñu borom da lay jéggal bàkkaar yi nga defoon ci at boobu yëpp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na siyaamu yawma arafa nee na woor bisu arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qabla wa sana allati baada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woor daal taxawaayu arafa bis boobu nga woor ko mooy yàlla dina la jéggal euh, at bi nga xamante ne moom nga passé moom nga génn ak at bi nga xamante ne moom ngay dugg kon taxawaayu arafa woor ko njëriñ bi loolu la ñaari at yooyu yëpp suñu borom dina la koy jéggal at bi nga génn ak at bi ngay jubal si waaye mu ne wasiyaamu mu ashura woor nag bisu tam xarit ahtasib ala allahi an yukaffi assana allati qabla njortu naa ne ku ko woor yàlla dina la jéggal at bi nga xamante ne moom nga génn kon mbokk yi xoolal bàkkaar ni mu sewe ak bàkkaar ni mu ragloo nga xam ne nit ki li koy dugal safara rek mooy bàkkaar waaye benn bis nga woor ko yàlla jéggal la at bi nga xamante ne moom nga génn bàkkaar boo si defoon kon loolu xam nga lu am solo la kon nañu góor góorgóorlu woor ko sellal ko waaye nag suñ koy woor nañu dugal yéene yéene ne fas yéene nañoo woor bi su tamxarit su ko defee yéene bi soo ko mënee dugal ci guddi gi baax na waaw soo xëyee tam su fekkee fàtte nga ko tam soo ko du xëyee rek mën nga koo dugal incha allahu rabbi day kii parce que wooru sunna la wooru sunna moom man ngaa soo ko fanaanoo moo gën waaye soo ko fanaanool te mën ngaa xëy ne ah tey day bisu arafa tey bisu arafa la dama koy woor wala tey bisu asura dama koy woor kooku baax na si wooru wooru sunna waaye su dee waru farata nag moom da fanaanoo yéene bi forcément euh, wa kaana annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nekkoon na di séentu bis boobu bisu asura pour woor ko ndax lan ndax li si nekk si ay yool ak ay tiyaaba ak ay ngëneel moo tax kuñ naan ibnu abbas wax na ne maa raaytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yataxarra siyaama yawmin faddalahu ala gayrihi illa haza al yawm yawmu asura wa haza shahr ay ar ramadan rawahu buxaari yi ibnu abbas nee na gisuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy séentu pour woor bis boo xamante ne euh, bisu asura gënal na ko mu woor ko maanaam yonent bi da doon séentu bisu asura pour waajal ko woor ko waaw ak ban bis ak euh, bisu weeru koor ak weeru koor ñaari bis yi daal moom da ko doon séentu waajal ko pour woor ko joxe ko muy koor gu wér xadis boobu Buxaari moo ko solo waaye tam yonent bi sallallahu doon na mébét parce que yéene woon na tam euh, bisu taasu a mooy bisu juróom-ñeenteelu fan bi yonent avant muy gaañu at bi nga xamante ne at boobu la gaañu lu jiitu tamxarit di ñëw dafa mébétoon ne su ma fi tamxarit bii di fekkee dinaa woor bis bi ko jiitu ak bisu tamxarit bi waaw yàlla dogal nag jotul fekkee tamxarit bi lu jiitu tamxarit bi ñëw yàlla téye ruuxam yonent bi wuñ ji boroomam kon mbokk yi liñ si dégg rek mooy comme yonent bi mébatoon na ne at bii de suma fi tamxarit fekkee dina woor taasu amaan bis bi ko jiitu bis bi mooy juróom-ñeenteelu fan bi ak fukkeelu fan bi kon nag sunna la tam comme fekkewu ko ñun jullit ñi ñu feddali sunna boobu dundal sunna boobu maanaam woor juróom-ñeenteel fan muy taasuwaa bi ak asura bi woor ñaari fan yi kon daal mbokk yi ngënee laa ngi nii boo xamante ni am na solo lool lool lool lool jafewul nañu góorgóorlu woor bisu taasuwaa bisu taasuwaa bi nag mooy ajjuma ji waaye bisu asura bi nag mooy samedi bi ñaar yëpp daal suñ ko mënee woor baax na suñ ko mënul woor moom nañu góorgóor ala kulli xaal bisu taas bisu asura bi incha allahu rabbi ñu woor ko yàlla nañ ko yàlla nongul yàlla yóbbu ñu si jàmm ak salaam ñu woor ko ñun ñëpp yàlla nongul ñu ko defal ñu si njéggalu at bi nga xamante ni moom la ñu weesu kon loolu yomb na yàlla yàlla suñ suñu borom defal léegi nag mu des aada yi nga xamante ne ah, aada yi nga xamante ne dinañ ko faral di def fii ci suñu réew mi di dëpp ay euh, boolu cere di euh, tibb ab tibb di ko teg ci bool bi walla euh, di xale yi di defar ay ndënd ah di ko tëgg di dem di naan taaja boon yooyu kàddu yooyu walla jigéen ñi di sol yére góor waaye góor ñi tam di sol yére jigéen mbokk yi loolu moom ay aada yoo xamante ne la nekkul si sharia sharia diglewu ko sharia diglewu ko diglewu ko aada yooyu mën naa jur bàkkaar parce que xam ngeen ne góor warta sol yére jigéen parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na euh, góor guy nuru nuru jigéen waaye yàlla rëbb na tam jigéen yuy nuru nuru góor kon colin boobu kooku nañ ko bàyyi aada la bu bon aada am na yu si baax waaye nag gis ëpp bu Islam, lislaam bépp aada ah, bu mengo lo islam dañ ko wara bayyi dañ ko wara bayyi dem bi ñuy dem si kër nit ñi tam taaje boon loolu aada la kooku jaru ko xam ngeen ne jamono ji rëb na rawatina na ñu toll si ay mbas nañu téye xale yi ba nga xamante ne xale yi suñu reeree ku mën bigal sa njaboot toggal leen lu baax a baax ñu reer ba suur nga wax defal leen waxtaan euh, defal leen historique bu bis bi ak li waral bis bi nga téye say xale si sa biir kër moo gën téeméeri junni nga leen di bàyyi ñu ngi si jamonoy mbas ah, xale itam di sol ay yëre góor ñii di sol yëre jigéen ñii di ñii di ñii di ñii di maquillé wu yooyu yëpp ay aada yu bon la yoo xamante ne day juru lu bon rek lay jur waaw day yàq diine nit ki te day tax nit ki jege seytaane parce que lu yent bi wax rek nañ ko bàyyi xel yent bi nee na jigéen bu mu nuru nuru góor waaye góor sa bu mu nuru jigéen kon yëre yu sol buñ ko def danañ ko téré suñu jaboot kon euh, xalé itam xam ngeen ne bàyyi xalé itam gis ëpp mën naa jur ay yu bëree bëri xalé yi dañuy gis guddi googu am na si xale yi leen di sàcc ah ñu réer ñu dugg si kër jàmbur yi di sàcc yooyu yëpp nañ ko éviter ya ala kulli xaal su fekkee da nga ne yonent bi laay roy yonent bi daal li mu doon def def ko yonent bi daal li mu doon def si bis bii nañ ko def mooy lan da ko doon waajal woor ko ah ne mébét naa ne at bii su fekkee tamxarit fekk na si naa woor bis bi ko jiitu kon ñun suñu mënee woor bis bi ko jiitu ak bisu tamxarit bi nañ ko def su ko defee nañ si jéem a tam dajale suñu njaboot jàngal leen seen diine ñetteel bi tam nañ si def ay ñaan parce que mooy atu junni yu bees yi lépp loo bëgg si at bu bees bi ñaan ko si yàlla mën na la ko may su ko defee ñu jéem a tam suñu njaboot suñu amee togg bu baax jox la ñu togg reer toog waxtaan ak ñoom jàngalante ak ñoom seen diine loolu daal bokk yi mooy li nga xamante ne moom moo am solo tus nga si itam nekk na ngëneel tus nga lu nekk na ngëneel ñaan si nekk na ngëneel xeet yooyu daal mën nañ ko def waaye yeneen aada yi daal tëgg ndënd yi sol yëre yoo xamante ne wax dëgg yàlla jigéen ñi sol yëre góor góor ñi sol yëre jigéen ah fi jamono ji daal wax dëgg yàlla gënul gënul gënul man duma ko def te incha allahu rabbi képp koo xamante ni yaa déglu waxtaan wi yal na yàlla nangul yal na yàlla xiirtal si boppam su ko defee lépp luy aada boo xamante ne daal aada bu bon la nañ ko bàyyi kon ngeen baal ñu àq wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu